mbokk yi internet yu géejuwaay euh, ñu ngi ak Cheikh Omar euh, Dia muy borom xam-xam daanaka daanaka mooy ñuy defaral suñu waxtaan yi ci wàllu tey euh, garabu nebe nebe ki barki démb teg nañu waxtaanam bi mu def ci sa ci laaj macha allah gars yi rafetlu ko lool tey nag ñu ñëw pour mu waxtaanal ci nebe kon nag ma bàyyi ko mu introduire ñu commencé waxtaan bi sëriñ bi ñu bëggoon ko waxtaan ci nebe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 di nuyu tamit waa Guédiawaye info yi nga xam ne itey askan wi jaral na leen toujours ñuy déplacé woo fu nekk di ñëw pour bëgg am njariñ partagé ko ak askan wi yëpp ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm. waaw nebedaay dafa nekk garab goo xamante ni gu bëri senegal la te nit ñu bëree bëri dañoo xaw a réere ay njariñam nebedaay mun naa ne mën naa faj ñett téeméeri feebar yoo xam ne benn ak sa morom bokku ci nebedaay mun na koo faj nebedaay day leeral bët doom bi ci boppam day wàcce suukar yokk sa tamit di leeral bët xob bi li carotte am ci vitamine A moom la am moo tax muy leeral bët orange vitamine C bi mu am mom la xobi neb day am banana potassium bi mu am mom la xobi nebe day am motax mu bax ci ay yakh yu metti ak ay sedit ak tension fer bi mu am mom la xobi nebe day am motax mu bax ci animé mew calcium bi mu am mom la xobi nebi day am motax jigéen ñi nàmpal di ko war di jëfandikoo su ko defee dina yokk kàttan seeni doom dina leen may doole nebedaay daal li ñu ci mun a wax dëgg daal mooy garab la goo xamante ni moom ñëpp mën nañ koo jëfandikoo te li muy faj ci ay feebar macha allah yàlla ñëpp dégg ko rek te topp ko barke Seydina Muhammad waaw xam nga garab jëfandikoo ko il faut ñu mën koo doose loolu mooy tax parce que bu ëppee day lor su manqué duutul faj tey du ne la boo boo jëlee xob yi soo jëlee xob yi boo boo tibbee saq rek daat koy baxal rek ci liitaru ndox rek mën naa baax parce que ki taal gazam ndànk di tàngal liitaru ndox ak ki ko yokk di tàngal liitaru ndox bu na bokke ay minute duñ bokk nu mu baxee duñ bokk ni garab gi yàbbee su ko defee nga wut tegtal ci ki yalla may xam-xam bi rek suko defé mu jaar la ko ak yow fimu wara jaar rek suko defé nga mëna jël njariñ li jariñ ñoko te du am benn lo dal ci kàttu bi yàlla waaw ñun ñoo ngi géejaway cité sofraako si wetu polisu gàddaay bi képp ku ñu soxla rek mëna ñu wo ci suñu numéro téléphone 77 543 42 39 wala 76 908 67 63 wala mu woo ñu 70 777 16 28 numéro yooyu képp kuñ ci woo rek di nga jokkoo ñun bu soobee yàlla waa lépp rek xam nga garab moom su ëppee day lor su manqué du faj lépp moom rek ñi ci ëpp li ñu ëppante xam-xam ci garab yépp rek mooy niñ koy niñ koy programmer ba am li nga ci bëgg loolu rek mooy mooy différence yi waaw mais garab moom boo ci xam ni nga koy ni nga koy ni nga koy defaree ba mu ba ba mu yam rek ku ko jëfandikoo rek di nga gis njaariñam ci kàttan yàlla. non garab garab gaa ngi bëri ci réew mi moom garab la gu neex goo xam ne car bi sax boo ko jëloon tey boo ko sampee boo ko roosee mu sax car bi rek boo ko dammoon boo ko roosee mu garab gu bari ci réew mi boo xamante ni nit ñi liy njariñam dëgg-dëgg xanaa def mbuum togg cere xëy li la ñu di jëfëndiko mais mom leppam day faj lepp ci di nebedaay rek day faj. Mhm. ak ko jugum kaddu gu muju moy nit ku nek rew ma nga dëkk garab ya fa yalla saxal garab yoy ñoo lay faj du wax parce que nit oxygène bi muy noy ci garab lay joggé vitamine ki oxygène bi muy so bi muy noy ci garab lay joggé gaz carbonique bi nit bi nit ki dégager ci ci ci ci ci mom la garab yi noy motax garab ak nit la bo len nit ku nek rew ma nga dekk rek ci carton yalla bo febrer rek bo tasee ku xam say garab rek bu neex yalla mën nga fa faji ci carton yalla wa waaw ku ma bëgg jot rek mën nga ma jot 77 548 543 42 39 wala 76 908 67 63 wala 70 777 16 28 waaw maa ngi dëkk ci géej a Géejawaay surtout Sofraco boo dépassé amoo siis bi rek bala nga agsi si té polisu gàddaay bi rek moom boo ma woowee rek naa la orienté ba nga ñëw ci man ci kàttanu la incha allah rabbi